jàpp ne itam seytaane mën na koo roofu ba mu bon kon daal mbaax dëkkul fenn lu dul ca xol ba ko yàlla dëkkal ndax bu fekkoon mbaax dëkk dëkk rekk ci aji yar ji kon ñu ne jibril mii Muusa mii mu yar ko baax lay nekk bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi ko ca ka yar kon kon dañu wax ne firawna e ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Muusa waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex mooy bàyyi itam ci ku ko neex mu mel ni moom yeneen yonent yàlla Muusa alayhi salaam yàlla dogal na itam e mbokkam moomu weer na ko te ki ko weer kat mbokkam la ndax Firawna dafa jëloon égyptiens yi jël leen teg leen ci kaw euh, israéliens yi ndax moom dafa jàpp rek ne ñoom ay doxandéem leen fi yonent yàlla Yuusuf moo leen fi indi waaye dëkkuñu fi ñu ñëw fi nag am taraanga mu nangu taraanga googu ci seen loxo nag di leen fitnaal moo tax ñu ne apartheid ki ko njëkk a def moo di Firawun moo njëkk def li ñuy wax racisme jël xeetam di giiram E di e ay mbokkam teg leen ci kaw juif yi te juif yi di leen sonal di leen teg xeetu métital bu nekk moom la alquran wax ne inna firawna ala fi l ard wa jacala ahlaha chiaan yastadcifu taifatan minhum yudabbixu abnaahum wa yastaxyi nisaahum innahu kaana min almufsidin wa nuridu an namunna ala alladina studcifuu fi l ard wa najcalahum a'immatan wa najcalahum alwarithin kon mu mel ni yàlla ba mu bëggee e racisme boobu dañ am na nu mu doxale te moo di ne su bàyyee rekk Muusa mu nekk ci pale bi di dund dund bu neex muusaa du ñor du nekk itam góor goo xamante ni ëllëg dana mën a yenu àdduna ndax ki war a yenu àdduna warul dund ci nëtëx nëtëx dafa war a dund ci ay difficulté wara a dund ci ay coono pour xolam toj mu mën a ñeme muñ ñeme itam coono mën a dëkku itam yu bari looloo tax yàlla jaarale fitne bi ci e, loxo Moussa pour Moussa mën a génn dëkk bi dem ca biti pour mën a nekk soldaar boo xamante ni ëllëg li yàlla te teg ci loxoom dana ko mën a gérer ci Eh, loxo yu mucc ayib moo tax bi nga xamante ni Moussa jaaxle na xamatul nu muy def am na benn waay bu baax bu ñuy wax xasqiil xasqiil yéen eh, waxoon nañ leen mooy kan ci waxtaan wi weesu xasqiil moo doon ki defaroon mooy menuisier bi defaroon kees gi nga xamante ni ci leen dugaloon Moussa sànni ko ca dex ga ndeke xasqil nit ku baax la nit ku sell la nit la koo xamante ni dafa juddu rekk gëm yàlla nekk ci xolam mu mës di wéetal yàlla mosul nangu mukk bokkaal yàlla ak dara moom xasqil mu ngi ne itam moom mu ngi tënku woon ci diine maam Ibrahima alayhi salaam ñu ne itam moo moo njëkk a gëm yonent yàlla Muusa bi mu woote yonent bi soloo neen jële ci moom mu ne et ëllëg ñi nga mu ne ñi jiitu ci ngëm yàlla ci xeet yi nee na ñett la ñoom musuñoo weddi yàlla lu toll ni xefa xeb bi moo di xasqil mi nga xamante nii e moo di muuminu ali ak xabibu najjar mooy e gaana gi nga xamante ni moom la yàlla di nettali histoire ci suuratu yaasin ak ali ibnu abi ñu ne ñii musuñoo ñi ñooy ñi nga xamante ni ñoo njëkk gëm ndax Alioune bokk na ci njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et moo njëkk a gëm yonent yàlla Moussa Habibu Najaar moom itam ndaw ya yonent yàlla Isa yebaloon ci dëkk boobu ñuy wax Antakiya ndax ay ibnu Maryam mu di Jésus bi mu ñëwee di woote am na ñu ñu tuddee woon ay ay alxawaariyuun xawaariyun yooyu nag ñoo doon jàppale yonent yàlla isa ci message am moo tax bi mu ne man ansaariya ila allah qaala alxawaariyun nahnu ansaarullah xawaariyun yooyu nag la yebaloon ci antakiya ba ñu fa demee nag di woote xabibu najaar bi moom moo fa njëkk a gëm mu nekk moom itam histoire bu doy waar boo xamante ni xëy na du ñàkk bis ñu dugg ci leeral ko moom xabibu najaar waaye ñu ne xasqiil moom daal mu ñëw daldi di fekk yonent yàlla Muusaa mu ngi toog jaaxle bi mu ñëwee daal daf ko bett dafa ñëw rek daal di fëgg ndànk mbagg yi mu daldi di mu ne ko Muusaa mu ne ko labayka mu ne ko maa ngi lay yëgal ne boo génnul dëkk bi danañ la rey e, ci pale ba lay jóge e, nit ñi e soldaar yi kompaloo nanu pour ñu ngi lay seet fu ne pour rey la parce que nee yow yaa rey waa ji ji ñu doon seet ku ko rey kon nag li ñu bëgg rek mooy nga génn soo génnul dëkk bi nag daneen la rey dama la ko wax nag dama la ko déey rek waaye sañu ma ko woon sax moom la alquran wax ni wa jaa rajulun min aqsa almadinati yasaa qaala ya muusa inna almalaa yatamiruuna bik li yaqtuluuk faxruj inni laka min annaasihin eh, ñu ne jële nañ ci Abdullah ibnu Abbas mu ne mu ne Moussa bi mu génnee jóge Égypte nee na mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax Madiana Moussa ne ah kon nag fii duma fi toog maa ngi daw nag dem dëkk boobu ñuy wax Madian ñu ne diggante Misra mu di Égypte ak Madiana nee na doxu juróom-ñetti guddi la dëkkoon dëkk bu sori la boo ko dee dox daal da ko dox lu tollook juróom-ñetti guddi mu ne yonent yàlla Muusaa nag dox na ko waaye diggante bi amul woon lu mu lekk lu dul ci xobi garab yi la doon dagg di lekk ñu ne nag benn malaaka moo ko wan yoon wi moo ko moo soppaliku nit ànd ak moom di ko wan yoon wi waaye moom yonent yàlla Muusaa ba muy départ ci dëkk ba lii la wax alquran wax ko mu ne fa xaraja minha xaaifan yataraqab fa xaraja minha xaaifan yataraqabu qaala rabbi najjini min alqawmi alzaalimin alquran nee na Muusa génn na ca dëkk ba nee na waaye fu ne mu ngi fay sànni bëtam pour bañ nit ñi gis ko pour rey ko nee na waaye bu muy génn ñaan gi doon wax mu ngi doon wax naan yow sama boroom rabbi yow sama boroom najjini yàlla nga ma musal min alqawmi alzaalimin ci nit ñu kàccoor ñi te mën a tooñ yàlla nga ma musal ci seenu ay yàlla nee na walamma tawajjaha tilqaa madyana qaala asa rabbi an yahdiyani sawa alsabil ñu ne Moussa bi nga xamante ni nag e takk na ndiggam sol dàllam wekkoo mbuusam nag yor yetam war jëm nag madyana yàlla nee na kàddu bi la muusaa doon wax mu ngi doon wax naan bi asa rabbi an yahdiyani sawa bi asa rabbi an yahdiyani sawa sabil am na yaakaar bu wér ci ne sama boroom dana ma teg ci yoon wu jub yoon woo xamante ni tiyaaba rek laa fay amee ak yiw moo tax itam yàlla bàyyiwu bàyyiwu ko mu taañaañ waaw comme ñaan na ko rek mu yebal malaaka mu ko gindi waaye itam mënoon naa dem ci beneen dëkk waaye daf ko yebal ci dëkk boo xamante ni ba mu fa demee fekk na fa naatongo yonentam bu baax bu ñuy wax Shuayb mu mel ni aaya bii nag di asa rabbi an yahdiyani sawa sabil wax ne ne képp koo xamante ni yaa ngi tukki di ko wax danga dem ak jàmm dellu si ak jàmm ndax Muusa ba mu ko waxee dem na ak jàmm te ba muy dellu si sax waxuma jàmm la delloo si waaye xéewal ga mu ëndaale rëy na ndax ca yoon wa am na ca alal am na ca soxna te wax na ca ak boroomam waaw kon am na ca zahir am ca baatin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sa tukki e mën na laa jural ay taraanga ak i xéewal yu rëy ñu ne moom yonent yàlla Muusa alayhi salaam bi mu duggsee ci dëkk boobu ngi wax mat yena xamante ni dox na dox bi metti lool ci moom bi mu agsee nag ci dëkk bi fekk na itam ay rootkat yoo xamante ni ñu ngi ci benn teen di root mu daldi ñëw moom yonent yàlla Muusa daldi toog ci benn e, suufu garab tëdd nag di noppalu moom la alquran wax ne fa lamma warada maa madyana wajada alayhi meneen min annaasi yasqawun wa wajada min duunihim imra'atayni tazudaani qaala maa xatbukuma qaalataa laa nasqi xatta yusdira arroa wa abuna cheikhun kabir ñu ne ci yàlla Muusa alayhi salaam bi nga xamante ni ñëw na ba toog ci suufu garab gi di noppalu ndax coono tukki beeg la ak fitna bi nee na ni mu toogee noonu fekk na ci benn teen am mbooloo ci ay nit ñu ngay root ca teen ba bi mu ñëwee itam gis na itam ñaari jigéen ñoo xamante ni dafa mel ni dañu beru taxaw fële mu mel ni itam nit ñi dañ leen seppi mel ni dañ leen dàq na leen daal du ngeen fi roote wante yàlla Muusaa nag xaw a am ñeewante ci ñoom daldi ñëw jóg dem ba ci ñoom fekk leen ñu taxaw mun leen waaw yéen lan moo waral seen taxawaay fii lu ngeen di def fii lu tax demu leen ngeen rooti nee na jigéen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu root mukk lu dul ba ñii dañoo root ba seeni nag ak seeni bëy ak seeni xar naan ba màndi ñu dem bu ñu demee nag ci seen desitu ndox ñun ci la ñuy root ci la ñuy naan ndax suñu bàyyi ab yonent la nekk ci dëkk bi te màggat la te itam amul ay doom yu góor te ñun itam ay doom yu jigéen lañu amuñu doole te itam e jigéen dañ ko doyadal ñàkkal ko fayda joxuñu ko benn importance looloo tax boo amul njaboot gu góor lu dul njaboot gu jigéen rek nga am da ngay sonn looloo tax suñu baay ba sonn yonent la waaye itam yonent bu ñu fit ñu la ndax amul njaboot gu góor fii kon da fi gis ne li taxoon a arab yi daan bëgg doom yu góor ba bu ñu amee doom bu jigéen gas ko suul loolu arab yi dañ ko daan def moo tax alquran wax ne wa idal mawuudatu suilat bi ay dambin qutilat mu ne doom ju jigéen ji ñu gas ba mu xóot ñu suul ko yàlla ne na ëllëg yowmal xiyaam danaa ko taxawal taxawal way juróom yi ko suul laaj leen ban bàkkaar la def ba tax ñu jël ko suul ko kon lii day wane ne arab yi Eh, seen aada bi aada bu yàgg la ndax dañ ne ñoom jigéen daal soo ko juree da koy dundal te bu màggee itam feneen lay dem sëyi kon daal jaruta sonn am doom ju góor góor daal moo ëpp njariñ wante itam réere xéewalu yàlla rek moo taxoon nit ñi daan ko def ak réere itam valeuru jigéen waaye bi lislaam ñëwee jox na jigéen aqam jox ko valeuram jox ko itam dara darajaam ci biir société bi moo tax itam képp koo xamante ni nit ku baax nga doo dañ di jox jigéen ak xam moo tax yonent yàlla Muusa jógoon moom itam pour jox ñaari jigéen ñoo ñooñu seen àq daal di ñëw wax ak ñoom considéré leen laaj leen ne leen lan moo di seen mbir ba tax nit ñi di root yéen ngeen taxaw fii ñu ne ko ñun de dañ di ay jigéen yu doye di te suñu bàyyi itam di mag te màggat yent yàlla Muusa bi nit ñi rootee ba dem dañu jël xeer wu rëy daal koy ubbe teen bi mooy teen yooyu nga xamante ni dañuy jël lu dañuy jël weñ teg ci ba pare jël xeer wu rëy teg ci te xeer wañ cay teg nag lu tollook fukki góor ñoo mën a jàppoo xeer wi wàccee ko waaye yàlla dafa joxoon yonent yàlla Muusa kàttan gu doy waar nit ku amoon kàttan la te am doole yent yàlla Moussa muy ñëw yëkkati xeer wi teg ko ci suuf ubbi bi rootar leen ba seen jur naan ba màndi mu delluwaat ca taatu garab ga mu eh, toogoon delluwaat fa tëdd di nopplu moom la alquran wax ni fa saqaa lahuma thumma tawalla ila zill fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir yàlla nee na yonent yàlla Muusa nandal na juri jigéen ñooñu ba mu ko defee ba pare nag ci la wëlbatiku delluwaat ci suufu garab ga toog waaye ba mu toogi ci suufu garab ga moom yonent yàlla Muusa waxtaan na ak boroomam am na lu mu wax boroomam lan la ko wax def na ko rab bi yow sama boroom inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir mu ni ko yiw ak wërsëg wii nga war a wàcce ci man jox ma ko yittewoo naa ko aajowoo naa ko ñu ne nag lu mu lekk rek la soxla woon looloo taxoon mu laaj loolu ndax sonn na ba xiif na xiif goo xamante ni jéggi na dayoo mu nekkoon yàlla daal bëgg naa nga jox ma wërsëg woo xamante ni dana lu lu ma war a lekk la ndax xiif na waaye ñoom jigéen ña ba Moussa delloo ci suufu garab ga ñoom dellu nañu seen kër dellu bu gaaw bi ñu ñëwee qaala lahuma abuhuma ma ajalakuma wa asraa rawaxakuma wajat na rajulan saalixan fa raximana fa saqa lana bi ñu ñëwee seen baay boobu ñuy wax Shuayb doon yonent yàlla doon nitu yàlla bu rëy ci dëkk ba ñu warmaal ko wax na leen ne leen waaye yéen de tey da gaaw a ñëw waaw lu tax ngeen gaaw a ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn waay ju baax benn góor gu baax daal leen fa fekk gu rafet moom daal ku am ni la moom daal moo ñu yërëm daal di ñëw eh, rootal ñu moo ñu rootal taxawuñu ba ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ga ah baay bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko mu daal di wax kenn ci doom doom ñaar la woon mu ne kenn ki demal nga wool ma ko waaye fii li tax mu ne fa ma naa mu yërëm ñu yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni maa akrama nisaa illa al karim wa maa ahanahunna illa al laim et yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ko baax koo fekk muy teral jigéen rek kooku ko baax la waaw bokk na ci màndargay mbaax di teral jigéen mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ko bon koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal di ko saaga di ko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigéen ku ko teral ku baax nga waaye ku ko doye di liitam ku bon nga moo tax ci màndarga boobu la Shuayb bu xamee ni kii nit ku baax la ndax ku tëral jigéen ku baax la mu ne kon dem mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Muusa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu mu ñëw ne ko sama baay de moo lay woo dama bëgg nga ñëw nee na nga ñëw wuyu ko moom la alquran wax ni fa jaathu ixdaahuma tamshi ala istixyaa qaalat inna abi yadcuuka li yajziyaka ma saqayta lana mu ne ko e alquran nee na ndaw si bi muy ñëw di woo si yonent yàlla Muusa nee na bi mu jubee yonent yàlla Muusa nee na tànk ya sax xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari jigéen ñu njëkk ña dañu amoon kersa dañu amoon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne alxayaau xasanun walakin fi nisaai axsanu yonent bi sallallahu alayhi nee na ji nee na kersa lu rafet la mu ne waaye nag ci jigéen la gën a rafet waaw kersa ba mu dañee ci jigéen ñi rek la àdduna bi yàqu waaye ba àdduna baaxee boobu fekkoon ne jigéen fees dell ak kersa moo tax alxuraan wax ne bi ndaw si dee ñëw di woo si yonent yàlla Muusa nee na ba mu ko jubee tànk ya xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama baay de lay woo pour fay la e, yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay am na luñ la ci war a fay e ñëwal nag nga wuy sama bàyyi moom moo la woo yonent yàlla Muusa daldi di jóg bi mu jógee itam pour wuy ji baay bi foofu itam am na lu am solo loo xamante ni e am na fi ci diggante ndaw si ak yonent yàlla Muusa ndax yonent yàlla Muusa ndaw si daf ko jiitu bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw see xam yoon wi moo koy jiitu bu ko defee Moussa topp ci ginnaawam waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba lupp ndaw si daal di feeñ maanaam yeel bi commencé feeñ yonent yàlla Moussa daal di dummóoyu daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yàlla Yaaqub ay jullit lañu te jullit du xool awra jigéen kon dama bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi sànni ma xeer sànni ma doj waaw soo ma sànnee doj ne ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmoñ nee na boobu moo ma gënal waaye daal bii moom gënalu ma ndax ñun ay doomu yeneentu lañu duñu gis awra a ah, ndaw si itam doxale ko noonu bi ñu ñëwee nag ci kër gi ba góor gi recevoir leen mu di yonent yàlla Shuaib te Moussa nettali ko fi mu jaar wan ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax firaaw na daf ko jëloon def ko doom waaye itam dafa am natt bu ko fa dal moo di dafa rey nit ci kaw erreur ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko mu daldi daw bi mu dawee nag bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi moom la alquran wax ne fa lamma jaahu wa qassa alayhi alqasas qaala laa taxaf najawta min alqawmi alzalimin mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp lii la ko Shuayb bu wax Shuayb bu daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay tooñkat leen mucc nga ci seen loxo tey dikk dikk nga ci dëkk bu baax dëkk boo xamante ni danga fi am taraanga am fi lépp te itam da nga fi am jàmm waaye e, ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool looloo tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar moo tax jikko rek moom moo am solo képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko moo la gën a aisé wu moo la gën a dal moo la gën a jub mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax qaalat ixdeehuma yaa abati istajirhu inna xayra man istajarta al amin kenn ci jigéen ñooñu te mooy ka wooyu woon yonent yàlla Muusa ca suufu garab ga moom de moo wax baay baayam bi ne ko yow sama baay kii jël ko mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeyal ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale tey itam mag nga jël ko mu fiy liggéey embauché ko xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kàttan ba pare te wóor ah baay bi itam daal di jaaxle nit koo gis tey nooy xame ne am na kàttan nooy xamee ne itam nit ku wóor la te Moussa Ndaw si mu ngi koy soog a gis tey baay bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal nit koo gis tey jii rek bëgg a xam ak kattanam bëgg a xam itam ak wóoram ah loolu di jaaxal na ma doom noo xamee ni kii ku am kàttan la mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba te fukki ponkal di ko yëkkati moom doomu yëkkati na xeer wa ubbil ñu teen bi rootal ñu loola tax ma xam kàttanam mu ne ko waaw e noo xamee ni itam moom ku wóor la noo xamee ni ku wóor la mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la eh, ku maandu la ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku ndax e, ngeluleeku e, ëf mu wuññeeku daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax te jullit la te jullit ñu gis awra loolu moo ma jox ne ku góor la kon nag li mu bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Muusa qaala uridu an unkixaka ixda bnataya haatayn ala an taajurani thamaniya xijajin fa in atamta ashran fa min cindik wa ma uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min alsaalixin góor gi ne ko ah yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tollook juróom-ñetti at yoo xamante ni danga koy liggéey man e su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na man daal bëgguma laa teg benn coono te itam boo jëflanteek man danga xam ne jëflante nga ak ko baax danaa la may soxna ba pare dimbale la qaala zalika bayni wa baynak ayuma al ajalayni qadaytu fala udwaana alayya wallahu ala ma naqulu wakil Moussa ne ko daal mbir mi daal mu ngi noonu man daal ñaari diggi bu ma ci def rek baax na waaye bi ñu laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ba ca gën mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si et ba yàlla dogal itam ñu njaboot ñu am ci doom ci la yonent yàlla Muusa nag daal di jóge ci dëkk ba di sàmmi nag di dem waaye mbokki jullit yi dafa am rek lu Abdullah ibnu Mas'ud daal waxoon dafa wax ne afrasu nnaasi salaasa al azizu xiina tafarrasa fi yusuf wa qaala limraatihi akrimi mathwaahu والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر ñu ne e Abdullah ibnu Mas'ud wax na ne nit ñi gën a rafet yi nga xamante ni ñoo gën a dëggu ak njort nee na ñett la yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne na ngeen moytu farasatal mu'min farasatal mu'min moo di njortub jullit ñaari jullit bu ñaawee njort ci dara rek loola mën naa am jullit piir ku sel su jékkee-jékki rek am lu mu ñaaw njort loolu mën naa am soo ne tëll mu ne diw mii de ku baax la buñ ko gëstoo rek ak mbaax lañ cee gis soo ne tëll jullit piir ne ah kii de ab saay-saay la may niru buñ ko gëstoo rek caacaay googu mën na caa feeñ loolu loolu la yonent bi wax na na ngeen moytu farasatal mu'min mooy jullit bu sel nee na ak njortoom na ngeen ci def attention ñaare lum mu njort rek dëgg lay nekk waaye Abdullah ma Mas'ud moom nee na ñi gën a dëggu ak njort nee na ñett lanu nee na buur ba jëndoon yuusuf nee na kooku itam ku rafetoon njort la ci yuusuf ndax ba mu ñëwee daf ne ko daal kii xale bu tedd la xale bu baax la bëgguma daal ñu sonal ko jaam la maa ngi ko jënd ci marché bi waaye dama bëgg nga teral ko xam nga loolu njortu lu rafet la njortu loolu moo dem bu yusufa takk ndaw si mu nekk soxnaam naka ci pexe bu fekkonte ne ndaw si daf ko téewoon ci kër ga di ko sonal di ko def lu ñaaw wala moom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujj ci gàcce rek lay nekk ñu ne itam ba ca topp moo di jigéen ja dikkaloon yonent yàlla Muusa moom itam ku rafetoon njort la ci yonent yàlla Muusa waaw ndax daf ne ko bàyyi embaucheel kii ndax ku gën ci ki ngay embauché ki ca gën mooy ku am kàttan te wóor te kii ku am kàttan la te wóor na ndaw soosu itam yonent yàlla Moussa mujj mujj na ko takk ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demee bay génn àdduna dafa woote ba ñépp ñëw mu ne li mu bëgg moo di awma sañ-sañu ne leen diw moo may donn waaye sama njortu rafet na ci Omar li ma bëgg mooy Omar ibnul Xataab toog sama gannaaw bu fekkee d'accord ngeen ci man de wooteel naa ko jaayante na ak moom ñu ne itam njortu Aboubacrin loolu lu rafet la ndax euh, Omar ibnul Xataab rusloowu ko ndax saxaaba yépp liggéey nañu waaye liggéey bi Omar ibnul Xataab liggéey itam liggéey bu rëy la mbokki jullit yi yonent yàlla Muusa ñu ngi yem ci fi mu ñëwee ci Madyana ba ñu may ko fi soxna léegi nag bii di ñëw danañ leen wax fa mu jaar ba yàlla def ko ab yonent mu war delluwaat Égypte pour woo woo na ci lislaam ñuy nuyu rekk suñu soppe bu baax di Salga Dieng dëkk ca ñaari tali ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di yëg ne yëg itam lu baax li nga xamante ni itam e, def na ko ci lettre bi mu di ay wax yu rafet di ay kàddu yu rafet seen mbokk Cheikh Ahmada Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop ak seen mbokk mu baax di al imaam Moussa Gueye te ci kanam tuuti ngeen war ko déglu ñu ngi leen di nuyu di leen sant wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.